ñetti waxtu yu toftal ñaar fukki simili ak ñeent yi ngeen di wéy di tàmbale tey chanket nag pënd ba wuréegul diggante rek nguur ak Sénégal ak mboolem mëñe yile ci loo xam ne euh, jëm na ci njëgu ko dund waaye tamit mbiruk farine beek coowal mburu mile mel ni daal jamono ji sa gara gi des di xëñ seen ak diggante enquête yéenekaay nag xëy jamono ji euh, dëxëñ nañ lu ni mel ci xëtam mu njëkk daal dañu xamal ne jamono ji gouvernement bu Sénégal fa mu tegoon tànkam ne na euh, foras daal di xëddeen di ko euh, teggi benn yoon loolu nag waral jamono ji daal mel ni leen kaay bi la muy xamal moom mooy fi ñu ne nii daal nguur gi ma ngi leen di déclarer guerre boobee ndax ci lekk meññee ak industriel daal dañu rek jël dogal ni dañuy nag dakkal production waaye tamit njaayum farine ci wàllu ko boulangerie ya ñoom ñooñee la ñuy sàkku bokk ci rek ay garantie yu am solo rawat na rek ci wàññiteefu ko njëgu ko sàkku ba nga xam ne daañu ko euh, financer Vox Populi yéen kaay moom nag ci coow loolee nee na daal jamono ji ñoom yi lekk mëñee dañ leen rek eh, di dut baaraamu tuuma ni ñoom ñooñee la ñu bëgg bokk na ci daal gàkkal loo xam ne daal moom mooy mbiru ko njaboot yeeg nañuy amee mburu mile bokk na ci tamit wàllu ko production mi nga xam ne daal eh, nguur gi eh, dox na seen ak diggante ka yëf yu ne mel mu mel ni jamono ji juróom-ñaar lañ ci mëñee yile yoo xamante ne ni seen ak diggante ak nguur ak Sénégal rataxul benn yoon bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataangoom ko le quotidien ko quotidien moom ci coowal loolee ak wàññi tëf gi leen nag jamono ji nguur gi ak mëñee yi leeg rawatina rek yeneen ci kër yooyee dafa mel ni daal yëf yi jamono di kenn xamul na mu tëddee industriel yi lee la ñu bëgg daal moom mooy ñu defal leen ay digle yu bees gouvernement bi des nag jamono ji di leen artu ñoom mëñee yooyu le mu mel ni daal jamono ji sas gi lenn la bu ñu ko xaymaa daal moom mooy fexe ba daal di rek indiwaat jàmm ci seen ak diggante ci wàllu ni mel ci tamit lu tax añ di woote rek jamono ji ñu daal di rek gën a ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo ci fas yéene jëlee ay loraange gouvernement bi daanaka xupp na ba noppi rek Willy Pandé ñii di mëñee yi loole les échos yi ni kaay moom moo ñu koy xamalte yi ci xësal njëkk na fa mburu wasaaroo jàpp daal ni jamono ji gouvernement ba noonu rek la des di sàkku daal ñu daal di dellowaat production farine ba te daal di rek ànd ak dogal yu yees yi nga xam ne jot nañu ko jël ci yi le nguur gi des nag tamit di dut baaraamu tuuma lépp loo xam ne ay pratique la ñeel ci lu ni mel bu ñu ko xaymaa nag bokk na ci rek yenn ca mission de vérification xamante ne ni yëglekaay bi mu ngi xam ne ne loolee jot nañu ko ca yónnee beneen mbir moo xam ne yéenekaay bi mu ngi koy sulli bokk na ci daal loo xam ne ay rëq-rëq la ñeel rek ci wàllu simon bi ak farin bi jamono ji meññee ak ñiy cimenté yëpp jamono ji daal ñu ngi jamono jooje ah, toog di xaar l'indépendant yéenekaay moom la mu wax daal moom mooy gouvernement na yet ba bu ñu koy xayma ci xëtu bokk ci daal coow li nga xam ne dox na ci diggante yeneen yéenekaay yi le bokk na ci daal lu l'indépendant yéenekaay des tey ji rek di xamle ci tamu njëkk gouvernement bi moom nag mu ngi naqarlu lépp loo xam moom mooy taxawaayu ko association meunier ak industriel yu réew mi nga xam ne daal jàpp na ne la ñuy mbëbët na ci daal daal di indi ay jafe-jafe ak gàkk ci wàllu ko mi le jëmale ci wàllu njaboot ci gouvernement bi tamit nee na jamono ji maa ngi leen di artu ngir rek ñu daal wëyal seen ak l'activité ci wàllu farine bi le bokk na ci daal ñoom ñooñee euh, ñu wéy di ko euh, jaay ngir rek ñëpp mën ca euh, jëfandikoo mbir la moo xam ne tam fekk nañ ko tey jii mu ne fàng surtout que le témoin yéenekaay ci mbirum farine bi le état meññee mu mel ni daal jamono ji jaayante doole la diirante mbagg ndaxte ñoom jamono jooju daal la ñu xam ne moom mooy ne nañ euh, duñu rek euh, génne farine bi le ndaxte nag production ba dañu koy daal di dakkal jawrin bi gàlloo lépp jëm ci wàllu ko njënd ak njaay des jamono ji rek di leen artu ci ci lu nga xam ne jot nañu koo jël ne ngi nepp dogal bu ñu sukkandiku ci moom euh, nguur ak Sénégal nee na du def jéego ci ginnaaw ci ci wàllu ni mel mu taxawoon xar du fa jóg lu ni mel a mburu moom moo ko waral loolee source a yéene moom moo xëy dëxañ ko ci xëtam mu njëkk ne fàng nag njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu Sénégal jaaxle nañ lool ci coowal lu ni mel jëwriñ bi gàllu wàllug industrie ak commerce di Serigne Gueye Diop moom la mu xam ne moom mooy lekk euh, kuréel mu mbooleem euh, mañ ni ak industrie yi nag bëgg moom mooy indil askan wi jafe-jafe waaye nag ñu leen di woo rek ñu daal ubbi seen euh, ci daal lam leen di xamal da ngeen ca ji bu ko muyut nag euh, nguur gi dana jël ay responsabilité am te naa leen gi daan bu ñu sukkandikoo ci lu source ay ni kaay xëy na fang ci euh, xëtam wu njëkk la tribune moom ci coow lu ni mel na nag ñetti weeri gouvernance la waaye nag jamono ji la ñu seetlu moom mooy coow am na ci lool ndax mburu dana ñàkk am déet laaj la boo xam ne samp na ko waaye daal li ko gën a sax jaaxal bokk na ci rek jamono ji koppar yi nga xam ne daal lim na ci daal lu toll ci junneeg téeméer ak juróom fukk ci ay milliards yoo xamante ni ci diiru ko ñetti weer fi Bassirou Diomaye dafa ko gouvernement ñoom ñooñee leb nañu ko rek bu ñu koy xayma nag euh, jege na lool jamono ji euh, téeméer ak juróom fukk ci ay xam ne ci marché UEMOA la ñaar fukk ak juróom ñett ci ay milliards diggante ñetti fan ci weeru mai euh, jàppale nag ni juróom-benn fukk ak juróom-ñett ci ay milliards loolee fanweeri fan ak benn ci weeru mai la juróom fukki milliards ya juróom-benn fan ci ko juin na ci xayma ga mu def bu ñu koy xayma lim na tam ñetti téeméeri milliards ak ñaar fukk ak ñeent xamante ne ni banque africaine de développement la ñu ko jëlee fukki fan ak benn ci weeru ko avril ñeenti téeméer ak juróom fukk ci milliards ci wàllu ko euro boo ñetti fan ci weeru juin ñaar téeméer ak fanweer ci ay milliards ci fonds monétaire international loolee diggante euh, mi juillet euh, bi ñu jëm libération yi ni kay des ak ñun nag ci benn cooloo xam ne ma ngay wulee ñaay ci coowal contrat chantier de réparation navale Dakar Nav dikkati na jàppale nag ni euh, juróom-ñetti ponk yoo xamante ne daal wàllu ko carnage financier la maanaam pëccoxoo boo xam ne daal gis nañu ko ci mbiru ko koppar yi lee tey rek yéen bi ne na bu ñu koy xam nag bu fekkente ni rek fileek ñaar fukki at ak juróom lañu ko daal di woon xaatima tey ji ñeent ci weeru juin la fas yéene rek expiré ñu daal di ko prolongé ci diiru ko juróom-ñett ci ay weer contrat ba bokk na ci daal loo xam ne jamono ji jur na coow bokk na ci li nga xam ne ma libération yi ni des ci xam ne ci xëtam mu njëkk mbiru ko dof ndey tam jot nañ ci wax ñoom la libération nañu nag càngeekoox la ñu ko tegee loxo dof ndey la koy xaar daal bu ñu moyut lu diis lool lay doon ndaxte jot nañ ko rek transféré ca Kaolack defeere ko rek Alassane Diallo moom na muy wuyoo jamono ji la daal la ñu koy ngànnaay waaye tamit eh, jéem a faat bakkan te loole warul benn yoon bu ñu koy xayma daal victime ba la mu yoroon daal moom mooy ab LTT eh, eh, boo xam ne moom mooy def na fanweer ci ay fan bokk na ci rek gën ngaa néew kenn ci nga xam ne ay seede lañ ñoom ñooñu jot nañu ko déglu ci coowal lu ni mel wàllub njàng ak njàngale Sud Quotidien yi ni kaay moom moo xëy na ko fàngate ji ci mu njëkk bu ñu koy xayma l'examen bu CFEE ji lay tàmbalee entrée en sixième rek ci seen ak coppi fas yéene rek euh, jàngat bu baax a baax épreuve yi ngir nag daal di wéyal seen ak euh, mbir le peuple yéene kaay moom tey ji xaddu rek euh, waxtaane jamono ji kii di général Kandé mi nga xam ne daal nguur ak Sénégal dañu ko wàcce woon yéene kaay bi nee nañu nag France yëkkati na ko Emmanuel Macron fàng ci xëtamu njëkk Bassirou Diomaye seen ak diggante France sargal na général Kandé loole la yéene bi xëy ne fàng ci xëtamu njëkk tàggat ndanaar bi ji euh, Pape Alassane Gueye yéen kaay bi nag lam ñu cee xamal moom mooy jamono ji moom doomu réewu Sénégal bi daal xam ne ne nag dina jóge olympique bu Marseille ginnaaw nag njeextaluk saison pile yéen kaay bi na nañu markato ba dafa mel ni daal mu ngay wule ña ndax ci wet gi euh, keneen ki euh, di di Iliman Ndiaye bokk na ci daal la ñuy waxtaan ci moom moom mooy bu ñu moyut nag moom jamono jooju rek dana nag wutali Everton bu di a gànna gay ca booru ko Angleterre digganteem ak kii di Modou Xarañ Lo combat la rek boo xam ne ñu ngi koy xaar waaye nag jàppale nag ni jamono ji daal moom si tafa la mu xamle moom mooy Modou loo xam na xel ne combat dëgg la daal di am combat jànq la na mu ko jàppe Aïcha li ma lutee nekkaay yi xëy fësal ci bésub tey ci nii di leen ñaanal ngeen jàngal ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire ñu lay jaajëfal. cant ak gërëm ñeen na réew tamit. merci beaucoup maa ngi souhaité nga passé une très belle journée ñu jox ci dig daje ba ëllëg incha allah. jàmm ak jàmm Aïcha. jaajëf Grégoire Samba Ngom mbokk bu ko defee ngeen des ak ñun ñu woyal xibaar yi euh, gën koo yaatal ak li gën a fës ci web bi dañ ci ànd ak Kajoor léegi léegi rek bu baax bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi.